asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax ni kontaan nañu ne bu baax waa Grand Dakar ne wan ngeen ni affaire bi ñor na leen ndax depuis boobu ñu ngi siy dox di si wax di def ay tey débat ma ànd ak Moustapha nii sa commune fu ne ñu dem fa ñuy waxtaan ñu diisoo ak ndaw ñi di waxtaan ak ñoom. ñu leen di wax nag ñu lépp lu ñuy mën ci def rek ci président de la république lay jógee te président de la république Antoine Diome mooy suñu buntu ci moom ndax moo moo la ñuy moo ñuy jàppale te bu ñuy jàppalee mu jàppale ndaw ñi te ndaw ñi dañoo war a gis seen bopp ci politique bi ndax ñun waa Grand Dakar kenn ëppale wuñ ci kenn ëppale wuñ ci te fii Antoine Basam dafa nekk Grand Dakar naam nag xombal na lépp mais base am Grand Dakar la kooku ne Antoine fii la nekkoon te man mi xam naa dara te dëkkal naa ndax maa jabaru frère am ñoo dëkkoon kon man li may wax wóor na ma mais damaa ne damaa bëgg ñëpp ngeen mànkoo ñu takku ànd jàppale président de la république ñu am suñu élection mandat 2024 ñu voté président de la république ñu gagné ko yi daal di jàpp ndax président. paré pour and ak mom dañoo paré pour and ak ñom te jappalé président de la république man ak gaay sam carte bu lema ko joxé fu président de la république merci beaucoup merci beaucoup lay sa bodé ñu ñu takkan bu baaxa baax salam alaykum mbolo bi ñu ngi di nuyu yeen ñepp ku nekk ci tour ak satam di len dalal di len massaw coono ndax ku ne xam na ne ci wéru koor tàngaay bi fi mu toll nii ngeen takk seen yitte bàyyi seen lépp ñëw toog fii loolu engagement nga du ko rëy wane ngeen ni vous êtes pleinement engagé balaa dara nag dañuy sant euh, suñu kilifa Amdi Moustapha mi nga xamante ni su jotaay bi tollee fii moom moo ko waral ndax moom moo jël ay ndaw ñu bëri ay association yu bëri ay mouvement yu bëri boole ko mu nekk benn say ñu tuddee ko afat xamante ni ci ginnaawu Antoine Diome lañu topp man nag Talla Balla Touré dëkk Grand Dakar jiite association des jeunes livreurs diplômés li waral loolu nag daa fekk ne président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall dafa mettre toutes les conditions sur la table ngir jàppale ndaw ñi ngir dimbali leen ngir dooleel leen balaa loolu nag ndimbal da cee fekk loxol borom mënu ma ne am naa sama diplôme jàng naa damay toog sama kër. di xaar nguur fekk ma fa yëkkati ay bureau wala yëkkati ay nit wala yëkkati débloqué ay fonds di ma ko jàppale yàlla yàlla baytu sa tool wala bi di wax suñu objectif nag lenn la mooy ñu vulgarisation la vulgarisation des projets des réalisations de son excellence mooy nit xanaa loo ñàkk xel ñàkk xel ñàkk xel boo gisee nen ni nene ngi ni def na ay réalisation ci domaine yëpp ci santé ci sport ci éducation ci bourse familiale yi def ko tamit ci infrastructure yi kon nekkatul nag engagement wala détermination mais jàppale président dafa war a nekk devoir ci ñëpp dafa war a nekk wareef ci ñun ñëpp wareef nag buñ ko waxee mooy koo xamante ni dalaa defal benn nekkal la ci naaj bi nga nekkal ko ci kër gi ndax ku ne xam na ni

ku ne xam fa nga mënee sa morom dafa toll nag foo xamante ne nii mooy dañoo bëgg a génn ci lenn mooy gisuma sama bopp ci nguur gi gisuma sama bopp ci parti bi wala gisuma sama bopp ci mouvement bi ñun ci loolu lañ bëgg a génn ñun ci loolu lañ bëgg a génn mooy nit loo bokk bul xaar kenn ku la woo dina ca yéen ñëpp dangeen ngeen cee bokk ndax dëkk bi jekk dëkk bi màgg dëkk bi naat dëkk bi développé. engagement personne la war a doon kenn bu nekk ci yéen dafa war a engagé wu à ce li yàq dëkk bi benn du commencé ci moom ñaar du nekk moom mooy xam ba taal ba li ko war li ko li ko mën nag lenn la mooy ngeen bokk ci mouvement bii afat ndax ni ko soxna Mbodé waxee sànq rek lépp loo gis daa am lu ko jiite mbooloo lu mu bari bari bari bari am na kenn ko nekk ca kaw moo waral lépp muy Antoine Diome gën a jege nag gën a yey gën a jege gën a yey ñun ñoo dëkk ak moom ñun ñoo dëkk ak yi bokkam ñun ñoo dëkk ak rakam ñun ñoo dëkk ak ay jarbaatam kon war a ñoo seetaan war a ñoo xuus xulle baa ñu yaafuus baa ñu ñàkk fayda ba kenn di ñu ëppale wala kenn di jël luñ fa moom ni nag bu nee baax na dañ naan est-ce que mbokk yaa ko wax bu dee ñun ñi xam te ñoo dëkk ak ay mbokkam xam ko xam démbam xam tayam ñoo koy wul kan moo koy jàppale keneen kan mooy engagé bi da koy jàppale ku ko def bu nekk mën nañ dafa seytaane wala dafa rambaaj wala dafa lii wala dafa laa mais ñun dafa nekk wareef dafa nekk lu ñu yay ci ñun lu war ci ñun ñu jàppale je vais pas monopoliser la parole parce que programme bi mu ngi doog a commencé te suñu kilifa am na discours de bienvenue bu mu waajal li nga xamante ne ñooy membre yu bees yi ak euh, soññi bi nga xamante ne kat pour ñi fi yàgg nekk la ak beneen message boo xamante ne ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu indi leen pour ñoom la di sant nag waa presse bi seen teewaay rafetlu nañ ko bu baax di sant assistance bi yëpp ak ñi ma bokkal table bi wasalaamaaleykum wa maa leen di ziare yéen ñooñu xam ne fu ma leen wooree ngeen Tay nak dafa am benn mbir bo xamne ne fi indi ñu war ko leral tay ji ni and ci ak Kappé mu nek nit ku bax tay su ko neexoon ba koy lijeenti mu lijeenti ko mom kase ati moko ko kasse kase def defu ko def na xaaral ma jug ànd ak sama jigen yi nga xamne ne metti ba legi man ak ñom la won ma bëgg kat mu bëgg ñun ñun ñi ñu and ak mom jàppale ko ci Antoine Diome ndax Antoine Diome ñu bëgg mom rek mo ñu ko mëna jox tay bi Kappé démé wax ak mom ne ko dafa am ay ndaw yu nek Grand Dakar gedd politique bi xamatuñu kenn xamatul fu ñu bokk bëgguñoo bokk ci Macky Sall bëgguñoo bokk ci waajoo yi nga xam ne kenn bëggu koo tudd dañoo toog rek léegi ndax ñooñu bëgguma ñu raw ma damaa bëgg nga jàppale ma may ma doole may ma loxo ngir ma ànd ak ñooñu mhm. jàppale leen ngir ñu am li ñu bëgg mhm. ba fépp fu Macky Sall woote lépp lu Macky bëgg ñu def ko ndax Grand Dakar macha allah ay jeunes kese la mhm. te ay jeunes yoo xamante ne nii dañoo engagé ay jeunes yoo xam ne dañoo am jom ñoo fi nekk bi demee wax ak Antoine mu ne ko kat jeunes yooyu fexeel bu bun ma rëcc indi leen ñoom ñëpp nga wax ak ñoom tey jii ndax loolu moo ñu fi indi Macky Sall nax wàcc ko fi dem feneen erreur la ndax moo yor réew mi moom rek lañuy ñuy topp moom la ñu bëgg keneen koo leen bëggee sëriñ moom yàq ngeen ko ma bëgg nag ñu ànd takku ba dëgër ànd liggéey ànd ànd topp suñu ginnaaw kapi bu ñu yàqal kapi ndax Grand Dakar dafa am loo xamante ne dafay nekk te dañu koy wax ndax ñun dañoo mën a dañoo ñeme terrain dañoo am fit ci li ñuy def waaye tey Kappy lii mu nekk am na ñoo xamante ne neexu leen te képp koo xamante ne neexu la doo ànd ak Kappy dañoo bëgg ñun ñëpp ñu ànd bootu ci ginnaaw Kappy ndax li ñu bëgg moom moo ñu ko mën a jàppale muy ñu dem ñu gisanteeg Antoine Diome wax ko suñu problème mu jàppale ci ay liggéey mhm. loolu moom rek ko mën a jox ma leen koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi mhm. buñ ko galgal ndax ndaw la bu nekk Grand Dakar ndaw la boo xamante ne dafa ànd ak jeunes yi engagé maa ngi leen di ñaan loolu tamit maa ngi nuyu ñëpp wax ci bopp maa ngi jégalu mënu ma wax merci beaucoup merci beaucoup Moustapha Diom di président force AFAT ma bëgg tànk bu baax a baax monsieur le président Monsieur le Président monsieur le président Sénégal monsieur le président ak monsieur le président à vous la parole rahim Abdou Aziz Mesdames et messieurs, chers journalistes, je voudrais avant tout propos adresser mes salutations à son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom, ministre de l'Intérieur et notre leader. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue, mais aussi mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation plus particulièrement aux membres du mouvement sans exception, à nos aînés et conseillers ici présents et aux représentants de Mamcherno Ibrahim le leader de la génération Dieuf Ag Cette conférence de presse est convoquée pour la présentation du mouvement Force AFAT, qui est un mouvement de soutien à M. le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom. Antoine Félix Abdoulaye Diom, étant un pur produit de l'école sénégalaise, de son cycle primaire à Khomol, à son cycle universitaire à l'université Cheikh Anta Diop, en passant au lycée de Thiès lors de son cycle secondaire avant d'intégrer l'École nationale d'administration pour ensuite se performer dans quelques institutions françaises et américaines. Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom a fait ses débuts en tant que le plus jeune magistrat de sa promotion à Durbel et ensuite au tribunal régional de Dakar et de Guédiawaye puis au cours d'appel de Dakar, avec de très importants dossiers tels que celui de Ino et d'Alex, pour ne citer que cela. Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diop, qui n'a montré que dynamisme, efficience dans le travail effectué sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Maxal. Nous profitons de cette occasion pour saluer les forces de défense et de sécurité qui abattent un énorme travail pour le confort de la population sénégalaise. Gatchengalama. La sécurité et la paix. Et sans la paix, point de vie, point de développement, et nous n'aurons même pas le temps pour les pratiques religieuses. Nous souhaitons par la même occasion un bon ramadan à toute la communauté sénégalaise, chrétienne et musulmane. Le Sénégal, Fox Afar va servir de levier pour vulgariser le bilan du président Macky Sall, qui, va faire, qui, qui fait faire un bond énorme au Sénégal. Le Sénégal de 2023 n'est résolument pas celui de 2012. Des avancées ont, été faites dans tous les secteurs. Santé, sécurité, infrastructure, sociale, emploi. Résolument, le bilan de son Excellence, M. Max Salé, est élogieux. C'est pour cela l'opposition se cantonne à des faits divers et à l'incitation à la violence. Le Sénégal est un pays de paix, de concorde et de bon vivre ensemble. Bref, le Sénégal est un pays de teranga. C'est aujourd'hui qu'on voit au Sénégal une opposition qui est prête à marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Nous invitons l'opposition à un débat programmatique et de bilan pour le bénéfice de tous les Sénégalais. La politique est un débat contradictoire, à coup de mots, dans lequel la force de l'argument prime sur l'argument de la force. Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom nous a instruit de développer une fidélité irréprochable à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, comme il le montre en exemple. Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom est au garde à vous pour la République. Force AFAD va dans les plus brefs délais démarrer une campagne de sensibilisation et de conscientisation des populations sur le bilan du président de la République, son Excellence M. Macky Le Sénégal se construit en actes, pas en mots. à Afar sera aussi la sentinelle de M. Félix, Antoine Félix Abdoulaye Diop, qui est un homme d'une dimension exceptionnelle, un talibé dans la plus estricte pureté du monde un homme au service des citoyens sénégalais, un ministre exemplaire qui assure sa tâche avec un pragmatisme hors norme. D'ailleurs, sa visite aux journalistes blessés et aux victimes de ces récentes manifestations démontre largement son humanisme. Merci à tous pour votre écoute. Force Affat sera dans le terrain

ndax xam nañ ni weeru koor lañu ne te dëkk bi tey tàng na suñu jigéen yi ngi fi war a taali ndogu ñu bàyyi lépp na président Macky Sall moo ñu ko jaral donc dañuy ñëw toog ñu ngi leen si félicité bu baax di leen gërëm di leen sant di gënëm aussi journaliste yi fi teew di teg gërëm bi si loxo Mouhamed wax dëgg yàlla mu doon ku baax ak loxo Baba Ndiaye ñi nga xamante ne lépp seen loxo laa ko tegoon defal na bu rafet di gërëm aussi. suñu benn kilifa bi nga xam na tey lii nii bu amee mooma moo ñu ko yombalal ndax moo téye suñu loxo yow yóbbu ñu ba si kilifa gi nañu ah ñii kat wax dëgg yàlla ay ndaw yu nekk Grand Dakar lañu engagé wu auprès de son excellence ñu ngeen xool ni ngeen di liggéeyee jeunesse yi mën a gis seen bopp si parti bi mooy monsieur Souleymane Diop di grand frère si ministre Antoine Félix Abdoulaye Diop di gërëm Moussa Niang di papa Cheikh di suñu baay suñu lijaay suñu conseiller di suñu lépp ki nga xamante ne depuis ba ñuy yëngu si politique avant sax depuis ba nekkee si mouvement associatif yi wax dëgg yàlla dafa nekk suñu conseiller dañuy xelal dañuy teg si ay yoon naa bu leen defee nii defee leen ne ñu ngi koy gërëm bu baax di koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu wër lool la yàgg fi bon man juste que lu may wax rek lenn la. avons la force afan dama nekk dans Dakar depuis 2000 ñu nekk si mouvement associatif Nous bëgg politique ñoo suñu grand frère bañ ba ne deful politique am dara ba sax wala politique maanaam boo pour nga day parce que bravo ko fi am il est temps ñu def politique parce que suñu koñ ak suñu dañu war a gis seen bopp dañu war a nekk à l'aise c'est-à-dire dañu war a am stabilité sociale loolu moo tax ñu jug sol suñuy dàll ànd ak suñu kilifa gi dem seeti monsieur le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome ñu exposé ko la problème tel qu'il est wax dëgg yàlla mu naqarlu ko lool nag te am yéene indi si une solution le plus rapidement possible moo tax ñu ne nañ ñëw au niveau de la base qu'on s'organise xam ñan ñoo fi ne ku ne lan la ñu teewoo ñu xool naka la ñuy organisé wu ba ku ne ñu mën la insérer si nu ñu ko bëggee incha allahu rabi man nag afat lu may wax ci moom lenn la muy Antoine Félix Abdoulaye Diop c'est le seul politicien bu ma toogal di wax ak moom ma xam ne du politicien amul xalaatu politicien amul gis-gisu politicien amul taxawaayu dóor c'est-à-dire boo ko demee lu mu lay defal da la koy defal ngir jëm yàlla yàlla do ko tax mu la koy defal waaw lu muy def da koy def ta yàlla tax ta man xamna ci dara donc di invité sama xel yëpp ak ñu fi nekk ñëpp nañ ñëw dugg ci mouvement bi ñu jàppale monsieur le monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diop en retour en retour je suis sûr et certain que ku nekk na ci gis bopam inshallah rabbi parce que nit ku bax la nit ku reconnaissant la nit ku ñaawul ak la te je pense que ni ku yéene nit ñi la parce que xam na nit lu mu njëkk wax leen la nga far même boo farulee ci moom gëm-gëmam gëm moom nga nekk un citoyen sénégalais nga far APR ñàkk far APR da nga war a gis sa bopp si gouvernement bi. parce que la gouvernement daf fi nekk pour ñëpp te loolu bokk na si lu tax ma gën kaa téye tamal loolu laa gëm le Sénégal d'aujourd'hui ma bokk ak yow gis-gis politique ñàkk bokk ak yow gis-gis politique dama jàpp ni su ma amee yow nga nekk fi da nga cee war a gis sa bopp parce que Sénégal ñoo ko bokk ku nekk am na sañ-sañu far fu neex nag man loolu laa gëm. mais nag wax dëgg yàlla man fii laa far man Antoine rek laay topp Antoine kese Antoine Félix Diome laay topp tey moom laay topp suba leen invité nag ngeen ñëw ñun ñëpp ñu àndandoo topp ko moom ñu jiital ñu dem topp le président Macky Sall ba lépp nga xam ne lu ñëm incha allah rabi ñu mën ko am si kàttan yàlla waaw si bu kenn dem dañuy def point de presse waaw bon jusque ni afal moom dafa nekk ki nga xam ne wax dëgg yàlla dafa ormal doomu aadama ormal doomu aadama c'est-à-dire que man gën naa ne tey bu mbóot taxawoon sax du jël bakkanam mbóot donc kooku humanisme plein d'humanisme ngi si moom te sécurité dëkk bi moom yaakaar naa ne kenn du ko naataable xëy na ñu toog si biti ñoo xamul mais ku dugg seen bureau yi da ngay école police da ngeen direction de la dugg seen salle seen saal yooyu noonu yi kii boo ko duggee li nga xam ne dëkk bi sécurité kese la lu mu lëndëm lëndëm lëndëm boo doxee bu la caméra yi jëlee dañ lay xàmmee dañ lay identifier te caméra yi nekkul infrarouge doomu de am na reconnaissance faciale am na lépp donc sécurité bi moom je pense que ni xëy na nag couvrir ñu fépp mais incha allahu rabi instant yi ñu ngi tam ay jéego yu am solo te gëm naa ne fii ak tuuti incha allahu rabi dinañu matal lépp si kàttan yàlla afat am na yéen a def am na yéen a dëkk bi sécurité donc am fi euh, agression yeeg def def def yu ñaaw yu fi am yëpp gëm naa ne bu sañoon day dañ te moom si tànk yooyu la ne te loolu nag liggéey bi amuñu si compétence bu bëri mais lu ma mën a wax rek mooy le président Macky Sall c'est un président exemplaire amul morom Afrique ñun sénégalais nag ñoo ko xamul opposition bi fi ne mënul laam-laamee président Macky Sall sur son bilan amul kenn du ñëw sur les débats programmatique wala sur les débats concernant le bilan amul su des faits divers la ñuy la ñuy la wu di wax lu ñu neex mais bu dee wàllum réalisation ak def ñuy gis président Macky Sall du morom kenn baño la le président du seen morom Macky Sall moo fi nekk tey moo fi la suba moom la topp tey moom la ñuy topp suba waaw ñun daal ñoom la ñu gëm attaque Macky Sall wasalaam gars yi kontaan naa ci yéen di leen gërëm di Merci, Monsieur le Président.